ngay ndaanaan ngay célébrité ngay ministre ngay député ngay borom daraja ci réew mi macha allah dañuy ñëw bu ñu ndogoo ba pare ànd ak yow ñu dem nag macha allah gis say am di jàmm ñu euh, def euh, si yow ay témoignage waxtaan ak yow ci ndogu ndaanaan tey nag euh, ñu ñëw nag set suñu parrain suñu xarit ki nga xam ne ne ndogu ndaanaan parrain la ci ba mu koy def du tey def na ak ay at ak ñun muy Serigne Bamba Seck alaaji Serigne Bamba Seck mu baax mi borom pikin borom Thiès kooku dañ koy ñaanal jàmm mbokku téléspectateurs yi ma ànd ak sama mag Adja Ngoy Thiali ñu war nag def ndogu ndaanaan sénégalais na namoon ngeen émission bi bu baax waaw namoon nañ ñu ci heure bu baax bi mag ak rakk tubaarkàlla macha allah sama rakk ji ndogu ndaanaan la ñu wax ndaanaan bu mel ni tubaarkàlla ajaratu umu saw tubaarkàlla def ko Cheikh Bamba Seck di parrain bi nee nañ leen fu jàngkat nekk fu musicien nekk fu ministre nekk fu député nekk képp kuy nit ku baax koo xam ne célébrité nga ci réew mi rek sa wàll nga ci ëttu tubaarkàlla ndaanaan yi macha allah ñu ngi ñaan yalla nag yàlla defal ñu jàmm kooru jàmm ak salaam ñu ngi baalu àq ñëpp dinaan baal àq télévision la 7TV la télé qui nous ressemble et nous ressemble télé bi ñuy nduru ba nopp dañu dojale moo ñëw fii tey ndogu ndaanaan dara du doy aja umu ndogu ndaanaan la ñu wax aca bokkoon balaa heure bee dañuy birale rek macha allah te tey di nga ñu wax secret bi ndax yonent bi tey jii ba fa demee ba ñëw macha allah évolution bu baax a baax a macha allah gis nañ ko ci moom ca sanc bu bees bi la ñu ñëw tubaarka tubaarkàlla di ko ñaanal nag gudd fan ak wér yaram ñu ñu ñaag jàll rek dem nag seeti soppe yonent bi géwalu yonent bi ah alaaji sëriñ Bamba Seck macha allah soppe yonent bi barki démb boo njaay macha allah la siyaare ji woon yonent bi ndogu ndaanaan sa yëf la yaa ko moom ndogu ndaanaan moo ñëw tey ànd ak télévision bu mag bi 7TV la télé qui nous ressemble et nous rassemble ñu ñëw nag ci émission bu mag bi nga xam ne ne macha allah seen mbégte rek mooy suñu bànneex bu ngeen ndogoo ba pare ñu ñëw indi leen émission euh, ndogu naan bégal leen ci ànd ak tàggkatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam a tey nag yaakaar naa ne liñ leen na a jox ci émision dina leen neex ndax yonent bi rek ko ko ñor. laaye géer gaa nga bayti laay Mamadu Lamin salaamu aleykum waayaalu baytu nabi waa gër yo nen seyduna muhammad walaa jinaanoon aa budul woona musawa soxna Umu Kalsum ajaratu ngoy caali budul woona musawa duñu lekk duñu naan duñu amub leer sayduna muhammad wala jinaanun sayduna muhammad wala naarin sayduna muhammad wala malakin maa bëgg yonen boo demee ci moom xam ni kii mooy waaja labayka allahumma labayka labayka la sharika laka labayka inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka asalaamaaleykum waa 7TV Mamadou Lamine. aleykum salaam foog naa nag heure bi ñu yegsee macha allah ci la ndogu jotee macha allah ala Cheikh Bamba ah tubaarkàlla dog jot na ci ndakaaru ak li ko wër gis nga ni macha allah. asalaamaaleykum maa ngi leen di yéen nuyu yéen ñëpp ci seen tur ci seen san di jël nuyaa nuyoo bi di ko wasaare ci loxo Cheikh Bamba Seck mu saareel ma ko ci ganam yu tedd yu baax yi di ñaan yàlla yi. sunu ndogu bi yàlla bu mu doon sunu mujj ndogu vraiment kontaan nañu sunu xol sedd na ndaxte Cheikh Bamba woote ñu wuy si la rek dafa jafe te nit ku baax rek moo mën a am loolu du ñëpp woo mën a ñëw woote ñuy si la surtout ñii nga xam ni ñëpp xam nañ leen ci ñàkk jot ak ni seen taanu mu xatee jóge ba ndakaar ñëw fii ba Thiès ñëw di la defar si émission di la ndogu si kon yow am na loo liggéey ñoom ba tax ñu ñëw fekk si la ci sa jour bi ñuy rafetlu loolu di kontaan ci loolu di ànd ak boo fas yéene woon nag ànd ak yow ci sa bës bii ba mu jeex tàkk mais programme yi dafa bari parce que dañoo nekk ci sunu loxo kilifa muy Thierno Alassane Sall mu yabal ñu ci ay euh, bërëb yu bari yoo xam ne dañ ko fa war a représenté mu boole ñoo coordonnateur am bu baax bi muy Massamba Diop nekk fii ci région de Thiès ñëpp xam ko ci social ñëpp xam ko ci dimbale nit ñi ñëpp xam ko ci jàppale jigéen ñi ñëpp xam ko ci jàppale ASC yi jumaa yi jàkka yi bàyyiwu ci kenn moom tey lañ fi taxawal parce que dafa voyagé sinon ñun ñoo doon ànd mais nag tey jii mel na ni taxaw na fi parce que ànd nañu ak délégation bi mi ñu booleel ñoom Laay Cissé ak euh, Laay Lamine Dieye ak njëmbat mii nga xam ni moom moo dox euh, affaire bi ba mu ñëw ndax tey ci suba la ma woo wax ma ne ma am na benn programme bu am euh, Cheikh Bamba daf koy def ma ne ko kuy Cheikh Bamba mu ne ma soo ñëwee di nga ko xam mu farlu ci lool te moo xam ni moom muy nit ku baax nit ku dëggu ma ne ko kon nañ ànd comme ça ndax wañ ñi boo gis ci benn lay commencé comme tey moo njëkk a organisé nañ dem ñu dem waxtaan ak moom gisanteeg moom saafanteeg moom fasanteeg moom kóllëre mais amul lenn luñ ci rëccu parce que accueil bu chaleureux bi ngeen ñu defar rek moo ñu njëkk a tenir ci yéen ndax nag ku yàgg ci loxo noo ko téye nu nekk xam nañ ko te gis nañu ni ngeen ñu téye gis nañu ni ngeen ñu dalalee kon ñoo ngi ñaan yàlla yal nañu yàlla wane la waat ci jataay bu mel nii ci darajey Seydina Muhammad mi nga xam ne moom ngay tagg bés bi nekk allahuma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfir li ma qaddamtu wa ma axartu dog dog jot na fii ci Ndakaaru ak ak li ko wër ak fii ci 7TV ak fii ci Thiès ay bisimilah. waaw macha allah mbokk yi xarit yi seetaan ci émission ndogu ndaanaan bi nga xam ne ne tey ñu ngi fii ci Thiès ci Serigne ba sekk macha allah ñu ñëw nag fekk fii euh, madame le maire adjoint maire bi nga xam ne ne macha allah moo fi teewal madame le maire ñëw wax fi ay kàddu yu am solo moom it ñu koy jaajëfal Adja Ngoy ndax dégg borom tur koo xam ne ne macha allah géwalu yonante bi la sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw toxu si bees ci seen gox ngeen ñëw fi en tant que autorité def ngeen li leen war ndax autorité moom macha warul xaar rek ba ñu ne def fi soxla dara rek mu ñëw kon nag ñi ngi lay ñaanal lépp lu nga xam ne yaa ngi koy yóotu yaak euh, sa patron macha allah madame le maire adjoint bi yow it ñi ngi lay ñaanal yaak sa délégation forte bi nga fi indi ak kàddu yu sell yi nga fi wax macha allah ngay nitu valeur ku la xool xam ne ne amoo temps mbooloo maa ngi lay xaar ci bunt bi oto yaa ngi gaare cortége bi taxaw na tey da ngeen nekk ci politique nekk ci campagne amu leen jot ñi ngi lay jaajëfal 7TV ñi ngi lay jaajëfal Adja Ngoye Thiali it mi ngi ciy sànni kàddu ci macha allah ci sa teewaay ànd ak la présidente bi nga xam ne ne euh, moo fi teewal képp rek koo xam ne soppe yonent bi nga ànd ak euh, Serigne Bamba Seck fële ca Pikine international bi Espagne ñëpp ñi ngi lay seetaan. kon madame adjoint le maire ñi ngi kontaan ci sa teewaay. macha allah sàllam toro de kon ñu ngi kontaan góor nag bu jugee ànd ak ay jigéen amal ci moom yaakaar parce que ku fonk jigéen rek xam nga ni kooku am na lu mu bëgg te am na ambition. kon yow sàllam toro Bourguédé boo jugee rek jël say jigéen ànd ak ñoom ne moom ñoom ngay dooleel ñu ñëw fekk si Cheikh Bamba Seck mu baax mi nga xam ne sunu nit la di parewu ndogu ndaanaan bi à macha allah ñu ñëw fekk si kon ñu fekk neex nañu kontaan nañu adjoint au maire ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi leen di ziar di kontaan ci yéen di wax ne macha allah nag bu déwénee moom teel leen ko pare ndogu ndaanaan bi seen yëf la ngeen di ko préparé ñu di ko def chaque année parce que Cheikh Bamba fu mu nekk rek dinañ ko fekk madame la maire ñëw teew yéen ñëpp ngeen teew. di wax ne kontaan nañu macha allah kontaan nañu lool lool lool ah Cheikh Bamba mi kenn mënu koo fay parce que moo fi def lu kenn mësta def fii moo ñu yee moo ñu gind ci ñun lu ñu am yonent bee ñu ko gënal te Cheikh Bamba lu mu am yonent bee ko gënal keroog bam ñu waxee ne damay def ndogu naan te ñoom umu saw dañ fiy ñëw lépp lu waay jàppoon danga koo bàyyi am na ñoo xam ne ci suba ba tey ñu ngi toog di xaar umu saw fee ñëwoo woon kenn du dem cheikh bi daal amuñu luñ ko fayee yàlla na ko sa borom fay ci barki yonent bi ah, te nday faatu fay mii bu ko neexoon du ñëw parce que léegi lañ ko ko wax mu bàyyi lépp lu mu doon def ñëw émission bi daal yàlla na jëm kanam ci barki yonent bi Ngoy maa lay nuyu bu baax sama trondoo maam maa ngi lay nuyu bu baax macha allah chéri maa ngi lay nuyu umu umu sunu xarit nga ñoo lay nuyu bu baax saw yàlla na sam borom def jàmm ci barki yonent bi jërëjëf jërëjëf macha allah. ñu am fi kilifa gu mag goo xam ne daf fi teew surtout Cheikh Yirim Numbaan ku dégg Cheikh Yirim Numbaan xam ne ne wàlliwu yàlla la boon boo xam ne ne macha allah bëri na baatin te képp rek. ku mu ñaanal macha allah wala sëtam ñaanal ko gis nga ci ngëneel ak yokkute macha allah cheikh bi ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu. Euh, ginnaaw bi ma sant yàlla jullu ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, di nuyu Cheikh Bamba Seck di ambassadeur Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, yàlla boole maag moom ci boole goo xam ne boole gu yéeme moom yàlla nag cheikh na Cheikh Sadul Abi moom boole ak moom ndax moom. dafa nekk nit koo xam ne nit bu yéeme may nuyu soxna Oumou saw bu baax a baax a baax a baax di ko ziar bu baax euh, di nuyu soxna Ngoy di am mbégte ci moom bu baax te di ko suivre bu baax ndax nit ku baax la nit ku yiw la nit ku rafet ay kàddu la wallahi azim sëñ Bamba nag man mënu ma ko fay ndax man fi ma dëkkee sori na ndax moom ñëw na fa sama gàmmu le 6 janvier bi passé bi mu fa ñëwee. dama sagal sagal goo xam ni ci askanu jëre jëre parce que askanu maam Cheikh Yérim Ndumbaan ndax nag ah, waykat yi bari nañ torop man Cheikh Youssou sekk di seet ci Cheikh Yérim Ndumbaan mooy sama waykat te lu tax ma bëgg ko dëggoom ak bëgg Seydina Mohamed tax ma dëgg ko man du dox dara ci caaxaan duma àndal kuy caaxaan ndax gëw ma kenn ku du Cheikh na Cheikh Sadbou ginnaaw bi ma gëmee Cheikh na Cheikh Sadbou gëw ma kenn ku du maam Cheikh Yérim Ndumbaan yàlla boole ak moom moom sëriñ bu baax di Cheikh Adramé doomu Cheikh Dumu ma koy ma koy ziar bu baax ay Aydara serif gis ni mu téewee nag taalibeem bu baax bii Aydara serif maa ngi yóbbante message ci yow man Cheikh Youssou Seck di seet ci Cheikh Yérim loo mën a téye sama xarit bi Aydara Chérif wallahi azim di nga mel ni téy nga képp koo xam ni ku nekk ci gëm Cheikh na Cheikh Sadul Abi ndax kii amul kenn ku dul yow dara kii fu mu taxaw ak fu mu mën a toll ci àdduna la kañ na la bàkk na la bu bu ma demee ba bëgg la wala bu ma demee ba gis la ay dara shérif yàlla ak sëriñ Bamba Seck la te sëriñ nag man Cheikh Youssou maa ngi koy ñaanal yàlla lii ñu ñëw indi ko def ko fii muy soxna Ngoy ak ah, soxna Oumou saw yal na leen ci yàlla jàppale ci barke Seydina Mohamed ba nag ñu koy def ay déwéni déwéni déwéni déwéni ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. Eh, waaw man de li ma ci sànni rek mooy que eh, kii maanaam kii mooy Cheikh Youssou mu Cheikh Yérim Ndoumban ñëpp xam nañu famille Cheikh Yérim Ndoumban yàlla am nag lu mu ko denk loo xam kenn mënu koo wax ci ci ci télé waaye boo ko waxee rek mun ma man dama lay xoolee Cheikh na Cheikh Sadbou dama lay xoolee Cheikh Hadrame Sidi Bouya ah ndax ku ne xam na ni borom borom borom borom amaama ge borom jinne yaa ngi nii. kii mooy Cheikh Xadraam borom Daaru Salaam kon kii bu teewee fi teew teewal na fi Cheikh Cheikh Saad bu teewal na fi Cheikh Yérim Ndumbaan teewal na fi Cheikh na Cheikh Xadraame te yéen yàlla dafa ma booleeg yéen yéen rek laa am lii ngeen ma defal nii nee nee naa carrément bu yemee fii sax baax na waaye nag tey émission bi moom sama soppe bi laa ko may kii kii mooy yaasin wal quraanil hakim innaka la minal mursalin ala sirati mustaqim tanzil al aziz rahim li tunzila qawma ma unzila abaam fa mu xaafilu sadaqa allah azim wasalaamu aleykum di di gërëm nag nag wax dëgg yàlla ajana eh, mi li tax ma ne ajana affaire yi dafa jàmp dafa jàmp wax dëgg yàlla yow xam nga mbir mi bi nga ma ko waxee rek yàggut waaye mu sonn ci loolu itam te ku dul ku dul sant nit ki doo sant yàlla hmm? di ko sant baax di ko di ko ñaanal yàlla ah wax dëgg yàlla ak ñi ci jàpp ñëpp boo limee doo fi jógee wax dëgg yàlla di gërëm bu baax nag itam soxna Rama Ndiaye da jàpp na ci xam nga combat bu ci bu ci nit jàppee da koy sant gërëm ko yaa yaa du du du loolu may dëgg maa ngi koy sant di ko gërëm macha allah maas dégg nga nee na ñaareel dañoo baax kii ne mi ngi lay sànni xeer mi ngi lay mi ngi lay sànni xeer waaw nag di gërëm na caméraman waaye nag damaa bëgg balaa ñuy dem ci biti mu mu ndog ndogoogul ah ndogoogul de te caméra bi dafa ma ne xaw naa diis nag ñi ngi sant ñëpp nag waa waaye di gërëm waa sallallahu ala muhammad bu Thiès ak bu bu Dakar di gërëm itam wax dëgg yàlla sama ki yor ki ki yor wàllum TikTok bi ah soxna Roqeya macha allah ki yaa ñi ngi sant ñëpp sama présidente nag man nag moom boole tuural boole naan wasalaamaaleykum ñu waaj na dem tànt ba incha allah. incha allah ginnaaw Cheikh Youssou bi mu waxee macha allah ñu am mbégteeg bànneex. ndax macha allah wàlliwu yàlla bu ñu fi toogee ci ndogu ndaanaan ñun émission bi sax suñu xel day dal xam na ne émission boo xam ne yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa jàpp na ci macha allah ma ne ko Cheikh Ndoumbane mooy sa mooy sa maam Cheikh Yirim Ndoumbane mooy maamam kon nag macha allah yow boo fi teewee dañuy am mbégte ak bànneex te xam na ne say taalibe lay seetaan borom gàmm yu nga xam ne ne macha allah chaque année yaa ngi koy def réew mi topp la nitu yàlla yi topp la xale yi topp la mbër yi topp la ñëpp topp la loo ñaanul baaxul yàlla na sa jàmm yàgg ñu ngi sàkkuwaat ci yow ñaan waaye nag saw pula ardo borom nag ak meew yi suñu bàjjen suñu wumpaañ moom it macha allah da ci sànni kàddu ndax waa tant ba ñu ngi ñuy xaar dafa tàntal na bi tey Serigne bàmba Seck. Ah, may jéggalu nag ci kàddu gi ma jël ndax boo gisee ma jël kàddu gi am na lu tax ndax Seex bàmba yàgg na fi yàggu fi waaye dafa ñëw fekk koñ bi nelaw Seex bàmba yee ndax alxames gu jot def ci gujj àjjuma di tagg yonent bi te loolu lu ñu manqué woon la te Cheikh Bamba mooñu ñu indil kon dañu cee kontaan di ko ñaanal nit ki danga koy ñaanal li mu bëgg moom moo ko xam dal na ko yàlla defal xam naa ne ñu koy ñaanal ci yokkute gi mu yokk koñ bi wàññiwul koñ bi de ndax ku ñëw indi fi salallahu ala muhammad delloo na ñëpp ci seen borom ndax nit ki doo demoon ba nekk sax ci lenn nga dégg sallallahu ala muhammad nga dégg tagg yonent bi bés bu ne di nga delloowaat sa xol ci leneen ñu koy ñaanal yàlla nag lii muy def yàlla na jëm kanam yàlla moo xam fu mu ko jëmale yàlla na fa yegg ci jàmm ak salaam merewuñ la benn yoon keroog fii la ñu toog di réunion di waxtaan ci la ñu wax ne Oumou Sow daf ma doon defal ndogu ndaanaan waaye ren nee naa ko na ko indi fii ndax loolu nit ku baax rek la ndax bu ñu bu ñu bu ñu amul woon ñu teg mën na dem Dakar fekk la fa defe ko fa mu ñibbi si bu ñu toogee mu ñuy jox ay image di ñu expliquer te kon tamit dañ ciy kontaan rek waaye keroog ba mu ne Oumou Sow dafiy ñëw dañoo kontaan ndax dama ne ko Oumou saw kër baayam a ngi nii dama ne ko kër baayam ma ngi nii barki démb lañ ko fi may cër mu ñëw ñun ñëpp fa la ñu fekk mu indi fa teraanga ju mat ay takkaayam la mujj tekki di ko takkal jabar ja ndax kontaan kon nag jërë ngeen jëf ñu leen dalal jàmm di leen dalal ndogu ndaanaan di leen dalal ci Cheikh bàmba lii rek laa amoon lu may wax ndax lii su ma ko waxul woon ci Cheikh Bamba su ma demee dinañ ma mere jërëjëf waaw waaw tubaarkàlla ginnaaw ndogu nañu ba nuppi macha allah kontaan nañu tubaarkàlla ah dañuy ànd ak la télévision 7TV tele bi ñuy nduru ba nopp di ñu dajale la télé qui nous ressemble et nous dem xool nag biir tànt bi macha allah naka la ñuy def ak waa sallallahu ala muhammad jërë ngeen jëf. rasulillahi alayhi salaatu wa salaam képp ku bëgg yonent bi na wax ca kaw ñetti yoon sallallahu ala muhammad. sallallahu ala muhammad. ku bëgg nekk ñaareel waxal sallallahu ala muhammad. waaw yaa. émission bi nii lay demee chaque jour macha allah ñu nekk nag samay jigéen. Moussa bu yàq émission bi damay dàqale. yàlla dogal ngeen ñëw ci ñi ma yàlla booleel. émission bi wax naa ne yàgg na te yàlla na gën a yàgg. man ak yow DTV man ak yow Dakar TV international man ak yow 2STV man ak yow tey jii 7TV lu yàgg dëgg la nga ànd ak nag ki nga xamante ni lu mu am ca yonent bu la juddoo ni muy làkke wolof noonu lay làkke arab marhaba ahlan wa sahlan foofu laa yem <laughs> man laaj ma marhaba marhaba biikum <laughs> waa nii la te moom mooy doomu Seydina Muhammad nit ñi bu dee bégg ci seytaan yow da ngay bégg ci yonent bi mooy li ma leen wax ku la ni ku la jur laaj ko ku la ni maa la gën laaj ko ku la jur kenn gën ku gën ki ñu gën mooy alayhi salaatu wa salaam sayyidi kawnayni wa aalimi shuhudi saaxibul idraaxi nuxbata banu aashim moom sayyidina Muhammad lu dul yonent bi yonent bi yéen a gën te lépp day jeex mu xam loolu ñu dem ba émission bi ñoom seen bopp ñu wax ne Cheikh Bamba Seck léegi mooy pare émission bi loolu coomo mënu ko gars yi dañuy dañuy jàpp tey bàyyi lu suba waaye ñii fu mu fu ma nekk fekk nañu ma fa ngir Seydina Muhammad te it mu bëgg ma sopp ma lool télé ba dem ba mujj dañuy wax ne Cheikh Bamba Seck 7TV la bokk kii nag yonent bi boole maag moom li ma waxoon laay te dama koy wax ci kaw man lu dul yonent bi ñoroo ma man Cheikh Ahmad Bamba mii lu dul yonent bi ñoroo fee feesoo sama bët koo mën a doon ñu taxawal na groupe boo xamante ni groupe sallallahu ala muhammad la tiijaan baa ngi ci murit baa ngi ci te bi ñu koy wootee metti woon na te genn waar gi yëpp nag ay borom kër lañu waaye ci seen ndigalu borom kër lañu bokkee yàlla na ma yàlla bàyyi ak ñoom Cees nag laa ko waxee xam naa waa Dakar dina lu met mais garaaw léegi fi mu ngi fii fii laa yeewoo kon su ko defee kii toog moom moo yore tableau sallallahu ala muhammad bu Dakar nekk taalibe Serigne Saliou nekk taalibe Cheikh Béthio Thioune la grand traiteur li nekk ci biir yëpp moom moo ko traité moom mii taalibe Serigne saaliw di Issa wante bu ñu demee ba ci kanam dina la may bii muy mooy bii sëñ sëriñ sëñ waa dëgg dëgg Serigne Béthio waaye di gërëm bu baax nag xale yi nga xamante ne fii ci Thiès ñoom ñoo tax wootuma waa Dakar barke Cheikh na Cheikh Sabu ñoo may jàppale fii ci guddi ajuma yi waaye lii ñuy préparé di la trois incha allah ma fas yéene ci ànd ak ñoom ñii ndax nag ku la yàppaloo moo la feesloo wala ku la feesloo moo la yàppaloo yàlla ngeen am jàmm su ko defee ma jox leen micro bi ngeen dawal eh, ngoñ caali nga nga ubbil sa rakk ah, xam naa ñu kii kii rek man leen yeewi ñu daale kii incha allah da doge kii bisimilah. maa ngi leen di présenté nag satu Cheikh Yérim nu maan bu ñu ko fàtte kii mooy borom kii mooy waaw ci groupe bi la bokk léegi kii mooy Cheikh Youssou mu Cheikh Yérim nu mbaan kii mooy borom jaan yi waaye nee naa ko nag sekk dama lay ñaan bu fi jaan génn tey ndax gi war dafa ñemewul jaan ah man daal yow yaa yow ñeme ko ma ñeme ko xam nga macha allah umu kalsom mi Mouhamadou Abdoulaye saw mooy way juram ñu ngi nuyu bu baax suñu yaay ji direct yonent bi lañ ko tudd alayhi salaatu wasalaam mu tudde doomam Fatimata bintu yaa Rasulullah muy umu soxna umu Kalsum xam nga moom dafa neex neexu boppam kalla macha allah géer la waaye xam nga géwél yi buñ la nampalee rek day doy waar nga dem mbaam am sëtu day xaw a doy waar tubaarkàlla waaye yéen a ngi ànd ak nag télévision la 7TV télé bi ñuy nduru ba noppi di ñu dajale la télé qui nous ressemble et nous ñu dem tey ndogu ndaanaan indi ko fii tey ci Thiès ci Cheikh Bamba Seck géwélu Seydouna Muhammad soxna mu kër soom kontaan nanu nga ni Futurs lan aawo wala <laughs> madame Inconi macha allah mbokki xarit yi ñuy seetaan fii ci Thiès nga xam ne ne macha allah sama kër baay ngi nii biñ ma ne fii laa ñëwoon barki démb ngénte si macha allah dama ne déedéet sëriñ Bamba Seck wax ma ko waaye bi ma ñëwee ba gis sama yaay ju baax gee toog macha allah ah yaayu Jibi saw yaayu Umu Sow ah yal na jàmmam yàgg maa ngi koy ñaanal muy jéeg jàmm njëriñ sëy ba sëy jotee macha allah mu muñal borom këram ba mu wuyu ji boromam référence la fii ci biir Thiès ñu ngi koy ñaanal jàmm di ñaanal euh, soxna euh, Serigne Bamba Seck Adja Ajana mi nga xam ne ne macha allah mooy Firdaws mi nga xam ne ne saa yu ñëwee moo ñu dalal ndagu daanaan bëgg jëkkëram ji ànd ak moom sopp ko. nee naa ko aawa na la jikk bu la jigee rek loo yootu jot ko ndax danga ànd ak Serigne Bamba Seck ba dara doonul woon dara tey ngeen toog ba yàlla jox ko këram gi ngeen jóge ba dakaar ñëw say sifi kon yawit jéegu référence la waaw papa Thione dafa way jaaga waaye yowit macha allah ci jaaga yi nga bokk yàlla na sa jàmm yàgg ñu ñaanal papa Thione tey la am ñetti ak ci bàmmeel yàlla na ko yàlla xare aljana waaw defi hommage euh, Papa Thione di ko ñaanal moom ak mama Kiné ak moom yi dañuy géey yal nañ xippee aljana ku sandaa fees rek nga ñibbi waaye ñoom it liggéey nañ fi euh, lu baax ndax njaboot gi mu am yëpp yonent bi la ko tuddee sallallahu alayhi kon mama Kiné Diouf it référence la Adja ku bëgg yonent bi soppoon la nag loolu mama Kiné Diouf sallallahu loolu moom moo koy wax ñëpp di ko dégg dëkk bi loo wax léegi ñu ne dañuy bàyyi ba nga ma jóg ah. waaw bëggoon na la loolu damaa ndogoogul nag. <laughs> balaa may wax dama koy gi ci barke Mouhamed. téléphone lañ ma ko jox man yonent bi rek laa bëgg wax naa ko. mu ne ma Cheikh Bamba ma ne ko waaw mu ne ma man lu dul yonent bi bëgguma ko. nit ñi nag dañuy bàyyi ba nga génn àdduna ñuy témoin man wutuma mosuma ko gis mu bëgg ma lool ndax laajte ndax nag wax dëgg yàlla ñun ñoo ngi ci télé yi chaque jour mu laajte mhm. ba xam may kan nu jox ma ko téléphone ma taggal ko yeneen bi mun a teg ma defeen sax daf fi nekkatul ki ma ko jox mu ne ma day jooy mi ngi ci biir suuf maa koy fekki te lii dafa nekk yu baax yoo xam ne moo dàq sax tëgg yeeg yi ndax da koy da koy fekk ci biir bàmmeelam am na koo xamante ni ma sàmba la bëgg ma dem ba ci caaxaar la moom xoolal li ko yàlla def ci teraanga yëpp mu ne man yooyu yëpp gisuma ko man ko koo bëgg mu ne Muhammad ma ne der ci téléphone bi mu ne teg mu ne teg ni ma Cheikh Bamba doo may gudd yonent bi ki ma ko jox man ka bis ma ko defee ñu ne may wayaane te man du ma wayaan ku dul yonent bi tombeeg soxna muumin astafirullah coon mhm. eh, sekk soo ngay génn àdduna mun ma xaabuma génn ci lii ma ne kon kooku bu ñuy def émission ngeen tudd ko mhm. dañuy wax ni ñi génn àdduna nañ leen di seede seede bu rafet ndax yàlla da ciy sukkandu am na solo lool soxna ki ne jaaga mhm. man bokk naa ci ñi seede ko bëggoon Seydunaa Muhammad tombeek sa bës bi tey Papa am ci ñetti at ci biir bàmmeelam ñu koy ñaanal yal na firdaw si doon këram Yacine Sow borom sóoratul Yacine yow it macha allah jigéen ju sell nga suñu rekk nga waaye macha allah yonent bi rek nga bëgg sallallahu alayhi wa sallam sa jàmm yàgg di leen wax nag mbokk yi xarit yi ñuy seetaan ci émission bu mag bi di ndogu ndaanaan ñu ciy gërëm Cheikh Youssou bu baax a baax macha allah yow sa baatin bi nga am macha allah yaa ngi koy bokk ak jaami mbër yi fi nekk di daan macha allah dañuy ñëw nga di leen ñaanal te coow ji bul bal tàkkul toogoo ci tiktok toogoo ci internet yàlla na sa baatin te nga may ñu ci sa baatin bi nag compal ñu ci. ah bokk na ci groupe sallallahu ala muhammad sallallahu ala man sax bokk naa ci léegi. bu mu ñu fàtte ci ñaan moom Cheikh Youssou Cheikh Mandou Mbane sa maam e tëggal ma ci Cheikh Mandou Mbane Cheikh Youssou tëggal ma ci Cheikh Mandou Mbane maamam Cheikh Mandou Mbane mooy sa maam jox ñu ci sa bi Cheikh Yirim Ndu Mbane mooy sa maam bi tey tudduma làmbaay macha allah macha allah ma leen di ñaanal jàmm tàggkatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen baat wér ba ngeen di ànd ak baam ba Seck dara doonul woon dara yàlla na seen jàmm yàgg waa Thiès ñi ngi leen di gërëm di leen sant man ku ma gis danga danga naan sax Thiès laa dëkk ndax bi ma nekkoon ak maam Sané sama premier borom kër waa Thiès sax comme dama bokk Thiès sama yaa jee toog di waa Thiès kon man samay doomu baay bu ñu dëkkee Thiès kon man dama am wàllu ñu ngi ñaan waa Thiès dañoo fidel dañoo dëggu bu ñu jàppee du ñu bàyyi mbooloo boo tëyee ci ñoom yow soo jàppul du ñu bàyyi kon nag jamono bi ñu nekk jamono solidarité la rawatina ngeen jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam solidaire ko ci sëriñ Bamba sekk mii ngeen eh, organiser ko kuréel bu mag bii kon nag Serigne Bamba ñu ngi lay ñaanal jàmm di ñaanal sa soxna di ñaanal ñi nga àndal macha di ñaanal sama waa ji ci tabale ji nga xam ne ne ba may bëgg ndooy maali maram ndooy du tey mën li muy def loolu te bàkkuwul ndamuwul àddina amul benn solo fii ñun ñëpp rek ku sandaa fees ga nga waaye boo nekkee ci biir àddina na rafet sekkal ni nit ñi jàmm yoral noppi garmi booy wax waxal lu baax rek ci diine mm. julli jàpp jaamu yàlla looloo fi ne ndax boo génnee sax tëdd ci sa kawlal sax loo war a am ala kuli aal ko am bu kenn ñee kenn nañu laabal xoli bëggante jàppante lu waay am te amoo ko yéene ko ko boo ko ko yéene yàlla defal loolu gën ci moom ndax dañ ne ne mbaax société la sa papa coono ko way waaye ñu ne nag mbonit société la iblis sa ko jiital waaye ku baax génn nga ci nañu laabal xol yi di julli ci yonent bi ut néeg boo xam ne fa la ñuy jaamoo yàlla di fa sant yonent bi bu baax ndax yonent bi boo koy sant sax boo amulee dépasse boo yeewoo di nga am dépasse kon nag yow mi juddoo màkka maa ngi lay ñaanal jàmm yow it sama mag sama xarit yàgg nga maa tagg ci réseaux sociaux yi wax ma lu baax wax sama jikko ndax saabu du fóot boppam dëgg la waaye man de yaay sama përngal te yaa may fóotal wax dëkk bi loo xam ne ne biñ ko déggee dañ maa ne umu saw gënal jàpp ngooy caali man jàpp naa la sama kanam ak sama ginnaaw yàlla na sa jàmm yàgg mbokk yi xarit yi seetaan ajaa ngooy mu ngi noonu yàlla nanga fi yàgg ànd boo gis dañuy wax mu sincère ànd bu dëgg moo am solo lii ñuy liggéey muy média lu metti la lu garaaw la waaye ku ci yar sa bopp rek la doon nit doo ci am safaan ak sa benn nawle yow yaa ma bëgg yow lu ma doon rek yow la tey su ma toogee ci télévision 7TV bi yaa tax mais Garmi laa bokkal ndey ak tele bu ma liggéeyee jaaxalul sama mag mais yaa ma xëcc mayoo Garmi sax ci man benn place lu dul xëcc ma rek gënale ma ak ñëpp te yow da ngaa bari valeur amu bi nga amee valeur du tey fonk may mënu dur fay de passage suñu patron bi ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na la yàlla gën a yëkkati jukki la jigéen ju mën góor ji ñu ngi ñaanal Adama waaye ñu ngi ñaanal Papis moo Modou Diouf ndax ñoom ñooy suñu doole tey lu ñu am ñoom la papi mii ñu àndal tubaarkàlla papa Diop mi nga xam ne fu ñu jógee mu jóg chauffeur Oumou Sow bi nga xam ne mooy chauffeur am di mécanicien am nit ku baax Cheikh Bamba maanaam daal tey bés bi dafa ala daw mi yeneen bi daal boo dee jug pour moom lépp la yomb kon ñu doxal. na ngeen ko seetaan ci télévision bu mag bi di 7TV chaque samedi su ngeen dogoo ba pare taal leen seen télé xool Ngoy Thiale ak Oumou Sow ñu bëggal leen ci ndaanaanu réew mi nga xam ne ñu ngi bëggal jaami saa su ne nii lay demee seen mbégte rek mooy suñu bànneex jërëjëf.